na euh, tàkk-tàkk yu bëri fay nañ ko ak euh, euh, ni ñu baaree woon tali bi sotti ci ay mbalit ak yooyu yëpp donc loolu yëpp situation bi réglé nañ ko ba yenn ci oto yi tamit ñoom ñu ngi ñu ngi jàll di dem di dem tranquillement sans sans problème sans problème euh, réaction yi nga xamante tamit euh, bëri na si ay leaders yi ko def euh, ndiki tey jii mu nekk ab journée boo xamante ni on peut dire que ni journée bu am yëngu-yëngu la journée bu am tension la ndax candidats yi ñoom dañoo waxoon ne rek dañuy def meeting ndax jàpp nañ ne calendrier électoral bi dañ koo war a dañ ko war a respecter loolu moo tax ñoom dinañu amal. li nga xamante ne moom mooy donc seen euh, seen meeting seen campagne électorale ndax campagne électorale bi nga xam ne bu ñuy fàttali ni euh, ndiki démb loo waroon door si euh, zéro heure jotee mais nag finalement discours njiiti réew mi mag Sall ak fi ñu ko doon xaare moom tamit daanaka bi mu ñëwee daal di xamal que ni daal waxtu wi faw ñu daal di reporter li nga xamante ni nag moom mooy. moom mooy yilee euh, yilee élection voilà mu ngi mu ngi noonu en tout cas comme ngeen koo gisee nag euh, fii si 26 ba tey voilà policiers yi ñoom ñu ngi taxaw ba tey rek di xool li nga xam te rek moom mooy situation bi ñu ngi observé fa léegi li nga xam te rek moom mooy situation bi Euh, taxaw rek ba xam ndax ñi ñeneen dinañu ñëw ngir mën a euh, taal ci beneen euh, wàll gi ak lu si mënte am circulation bi moom ma ngay woy di continuer calmement tranquillement journée tay bi nekk na journée bu journée bu bu bu voilà journée bu doy waar parce que yëf yi quatre manifestation la mujj la la la mujj transformé wu voilà manifestation la mujj transformé parce que yenn si ay diwaan si Ndakaaru euh, gis nañ ay manifestants ñoom tamit génn euh, génn rek ñoom tamit pour mën a wax ne daal élection faaw mu am euh, te campagne électorale tamit dafay dafay daal di am ñoom nag loolu la ñu wax moo tax ñu génn ngir mën a. rejoindre ñi nga xam te ne tey jii euh, ñoom ñoo di les candidats euh, te si jamono jooju candidats yooyu tamit xam ngeen ne euh, li ñu bëggoon tey amuñu ko ndax dañu waxoon dañuy démarrer seen campagne waaye nag yëf yi yombutoon dara parce que fële sa Saint-Lazare gis nañ dafa xew gis nañ dafa fa am gendarmerie aussi fees fa dell taxaw si rond point Saint-Lazare bi taxaw si si kaw pont bi ak si suuf yëpp daanaka foofu yëpp ñu daal di koy occupé ngir rek bañ. Euh, donc campagne am ak euh, comme ni ko candidat yi sàkkee woon euh, Guy Marius tamit ci wàll bi tamit gis nañ ko foofu moom mu ànd ak donc ay ay collègue député mu ànd ak tamit ñi nga xamante ni mun nañu wax ne ay candidat lañ Thierno Alassane Sall ay kàddoom moom ba tey dafa wax ne daal faw Macky Sall delluwaat njiitu mu mi Macky Sall delluwaat ci euh, décision bi nga xamante ni daal na koy jël maanaam ngir mu reporter li nga xamante ni moom mooy élection yi euh, loolu nag euh, wax na ni tamit ndiki suba dina dem sa assemblée nationale assemblée boobu nga xamante ni la ñu war a wootee ab commission d' enquête parlementaire commission d' enquête parlementaire boobu nag député si ñoom ñoo wax ne faw ñu randal élection yi si diiru juróom benn weer en attendant ñu daal di euh, mën a organiser ay élections élections yoo xamante bu ñu ci organiser euh, kii di Karim Wade dina mën a bokk si euh, si les élections donc ñoom jàpp nañ ne élection warta am te Karim Meïssa Wade bokk si voilà loolu mooy kàddu yi nga xamante ni tamit député PDS yi ñoom ñoo ko xamle voilà kon situation bi fi mu ne nii calme na policiers yi nag ba tey demuñu ñu ngi taxaw rek di sécuriser li nga xam mooy circulation bi tali bi oto yi mën a jàll euh, lu jëm jàmmalaay rond point 26 euh, jàpp foire donc on peut dire que circulation bi mu ngay mu ngay normal ndax euh, finalement takk der yi ñoom dañoo intervenir voilà taxaw si kaw tali bi dispersé foule bi nga xamante ni moom moo fi amoon mu nekk mbooloo bu takk mbooloo bu bari boo xamante ni gis nañ ko tout à ak. xale yi nga xamante ni ñoom ñëw nañ ngir amal euh, ñoom tamit manifestation yi ñu doon euh, yi doon amal ba léegi si si euh, Ndakaaru mu nekk anam goo xamante ni nag anam gu yéeme la voilà donc éléments yi ñoom ñu ngi ñu ngi taxaw rek daal di xool ndax ñi di manifester dinañ génn waa wala déet. ak lu si mënta am jàpp leen ni daal voilà ñu dem si beneen côté bi rek ndax euh, lu jëm si kaw tamit maa ngi seen li nga xam te rek moom mooy saxaar si jolli si kaw noonu ci kaw tamit voilà daf mel ni côté jàmmalaay bi noonu si kaw foofu tamit daanaka gis nañ saxaar si mu jollee foofu nu mu baree. yéen gis noonu si kaw tamit saxaar si ni muy jollee noonu donc ñu avancé rek si côté jàmmalaay bi noonu foofu tamit daanaka gaa ñi dañoo taal foofu seen i voilà ñu daal di avancer rek si si euh, koñu parcelle bi noonu parce que am na benn fourgon bu auto police bi nga xamante ni moo daal di taxaw foofu. gis ngeen noonu ba tey ci beneen côté bi parce que oto policier yi ñoo taxaw noonu ba tey rek euh, ak seen oto bi fa mel ni nag ci ruq bi noonu dafa am ay ndaw yoo xamante ni dañoo daal di génn ñoom tamit euh, ñu continuer rek lii di manifestation yi mais beneen oto euh, police bi moom mu nekk oto ab benn oto belende bu ndaw comme ni ngeen ko gisee noonu nag ci écran yi tey fii si Parcelles Assainies donc manifestation bi tamit mu ngay woy voilà li jëm si jàmmalaay moom saxaar si ni muy joolee foofu doy na waar ndax on peut dire que euh, fii tamit ndaw ñi bàyyiwuñ ñu ngi continuer ba tey di amal li nga xam te rek moom mooy donc manifestation yi depuis euh, depuis cette soirée ba léegi ndax quinze heures la waa candidat yi waxoon donc fi mu ne nii gis ngeen lu jëm si beneen côté bi voilà nañu taxaw nii rek ñu daal di leen wan image yi donc lu jëm si biir tamit si biir koñ bi tamit foofu euh, gis nañ tàkk-tàkk yi nga xamante ni am na foofee euh, ndax takk tàkk yi si boppam euh, si biir koñ bi la oto policier bi tamit taxaw rek voilà waneel ma noonu si biir si biir koñ parcelle bi donc yéen a ngi gis noonu tàkk-tàkk yi ak safara si nu mu baree ni muy joolee noonu foofu tamit dañ ko daal di baare woon rek daal di koy taal voilà mais amul benn Euh, ndaw boo xamante ni gis nañ ko mu taxaw foofu noonu mais jàppale ne dañ koo taal noonu rek bàyyi ko noonu ñàkkul ne nag xale yi dañoo làqatu si ginnaaw safara si wala dañoo làqatu am na sax ay quelques quelques si ay ñoom ñi nga xamante ni ñu ngi taxaw noonu ba tay rek ñoom ñi ngi taxaw noonu ba tey rek si ay xale euh, si ginnaaw noonu euh, fii nag moom jaar fi dina dina yéeme mais auto bi moom mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi noonu taxaw si si si suñu suñu suñu kanam Euh, oto policier bi mu nekk euh, oto belende bi euh, am ànd ak seen élément ñoom ñoo ñoom ñoo taxanu rek viser koñ bi taxaw rek di di déglu ñoom tamit voilà donc ñu fàttali leen rek yéen ngi yéen a ànd ak ñun en direct 19 heures 18 moo moo jot voilà fii si parcelle rawatina si rond point 26 donc cette fois ci nag si koñu parcelle bi la parce que Euh, si kaw tali bi nga xamante ni moom mooy tali rond point 26 beeg euh, ak euh, lu prolongé dem si kaw foofu yëpp lañ koo baare woon mais éléments yi ñoom ñoo ñëw daal di daal di nag dispersé li nga xamante rek moom mooy xale yi taxawoon baare woon tali bi mais c'est pas facile que ñoom tamit ngir ñu mën a ñu mën a disperser carrément li nga xamante rek moom mooy foule bi ndax boo demee si koñ bi tamit bëri na si. bëri na si ay euh, diwaan yoo xamante ni tamit mu ngi mu ngi daal di booy rawatina na fii si parcelle ndax koñ bi am na si ay euh, tàkk-tàkk yu bëri yoo xamante ne ba léegi nii fayaguñ ko donc yéen a ngi gis noonu safara si ni muy joolee noonu si kanam euh, si kaw si kanamu parcelle bi noonu tamit daanaka ba léegi safar saa ngi tàkk rek di daal di daal di di booy noonu saxaar si tamit di jolli si kaw si suñ beneen côté beneen booru jàmmalaay bi tamit on peut dire que foofu tamit euh, situation bi day na waar embouteillage yu métti tàmbali naa am si kaw tali bi parce que oto yi ñoo mënatul dem gis ngeen noonu si kaw saxaar si nu mu jollee noonu mu nekk euh, saxaar su bëree bari di tàq si kaw euh, foofu tamit ñàkkul ne xale yi dañ faa bëri ndax ba léegi rek éléments yi ñu ngi jéem a def nañ lu nekk pour jéem a tasaare xale yi waaye situation bi ba tey dafa mel ni dafa gën a dafa gën a doy waar situation bi dafa gën a dafa gën a tendre donc la situation elle est tendue ici euh, à Parcelles rawatina Jàmmalaay jàpp Nord Foire foofu yëpp daanaka euh, bëri na si ay ndaw yi nga xamante ni euh, comme ni ngeen ko gisee dañoo wàcc sur le terrain ñoom tamit fas yéene manifesté wu waneen ma beneen boor bi safara si moom ba tey fayagul mu ngi tàkk ba tey fii si Parcelles Assainies donte policiers yi am na si yenn oto yoo xamante ni ñu ngi ñu ngi tàmbalee ñëw waaye ba léegi dafa mel ni situation bi rek léeguñ ko am na taxi boo xam ne dafa bëggoon jàll mais taxi bi si boppam Euh, mënatul jàll parce que euh, fi mu ne nii si kanam dafa am euh, dañ ko dañ ko bloqué ak safara donc fi mu ne nii moom mu ngi jéem a def le tout pour mën a tourner voilà moom moom moom taximaan boobu li ma koy xelal mooy mu retourner parce que si kanam ni ñu ko taalee noonu situation en tout cas doy na waar voilà oto yi nga xamante ni ñu ngi jaar ci côté boobu pour mën a mën a dem ñàkku ne foofu tamit xale yi rek jugewuñ fa parce que li tax policiers yi mënuñu avancer si kanam pour mën a pour mën a fay safara si pour mën a rek daal di Euh, disperser foule bi ñàkkul ne euh, dafa am ñu làqatu si ruq yeeg yooyu parce que koñ bi nag dafa xaw a xat moo tax du yomb dara pour ñoom tamit ñu mën a avancer si kanam moo tax it ñu ngi noonu taxaw rek di ñu ngi noonu taxaw rek daal di euh, déglu ba léegi rek ba jéem a xam ban solution lañ mën a ut ndax bu gënee guddi tamit dina gën a métti te booba léegi situation bi réglé guñ ko si yenn si ay ruq-ruqaat yi. fii si parcelle ndax dañuy avancer am déet loolu yëpp jàppale ne euh, mu ngi noonu en tout cas am na si ay euh, éléments yoo xamante ni ñu ngi sama ginnaaw di ñëw dafa mel ñoom tamit bu ñu bu ñu ñëw dañuy avancer daal di daal di dem si kanam.